Buenos días, hombres. Estamos pidiendo aquí un gran almacén. Ah, le grand bazar bu nekkoon fii jaxaay lañ doon laajte. Ah, ah, le grand bazar. bu ñu ñëwee ba ci rond-point guy dañuy def seen droite dox tuuti rek jëm grand bazar. am na Kër masaar am na Thiès am na Ndar. am na fépp. spécial ouverture showroom 2 Almadi 2 Zac Mbao 2 HP Grand Bazar Jaxaay ubbil na lépp loo leen soxla ci article de maison am na fi bul seeti feneen vaisselle de qualité yu mucc ayib décoration électroménager packaging mobilier de jardin jouets bambinerie seen showroom 2 HP Grand Bazar Bazar Jaxaay ñàkkul dara pour yéen ñi waajal weeru koor gu sell gi am nañu ay thermos ay service petit déjeuner ensemble carafe sept pièces xoolal ma yi xeetu verre yi fontaine pour jus ak ndox danga koy xool rek daa di mar naan tapis pour salon tapis yu taaru yi nag leneen la vase pour seeni décoration xanaa du 2 HP Grand Bazar ngeen taamu ci seen biir kër ci numéro yi ma leen di bëgg a jox 77 358 73 73 wala 77 358 74 74 2 HP Grand bazar daal du hasard